mooy lan soo gisee déjà ñi ngi wax ne procès bi amatul engouement hmm. parce que tey le Pastef est passé à autre chose hmm. ah, man si sama jàngat hmm. le Pastef est passé à autre chose il laisse le soin aux avocats de faire leur travail ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy les militants et les sympathisants ak ñi nga xamante ne moo di les responsables dans le parti ils sont en train de dérouler et ce que je dis moo di ne xam nga yii yëpp ñuy wax ñuy dérouler nii yëpp muy am li fi am boobu ba léegi chaque jour on te ressort un discours de Ousmane Sonko qui parlait de ce problème à l'instant T qu'on est en train de vivre c'est-à-dire ils se sont préparés à toutes les éventualités ñoom xam nañu bu baax fu ñu jëm comment ils comptent s'y euh, s'y prendre pour régler li nga xamante ne moom moo di seen problème comme li may wax rek d'ordre juridique la oui. les avocats vont s'atteler à ça mm-hmm. li nga xamante ne nag ci terrain politique lañ koy joue mm-hmm. non ils sont en train convenablement na comme ni niñ ko bëggee te comme je dirais Ousmane Sonko emprisonné certes ok d'accord mais on n'a pas emprisonné son esprit li mu bëgg di dérouler mi ngi koy di dérouler et qu'on le veuille ou non en prison il est le maître du jeu jusqu'à présent c'est lui qui déroule parce que tey ñii man yaakaar naa ne suñu mënoon duñu ay cuune xoolal lem nañu match bi yàgg na mm-hmm. mais match bi daf leen të Mhm. dafa lëj si seen loxo mënuñu koo lijjanti moo tax yii yëpp di tombe si seen kaw li may wax euh, lal ndëgg sarax yomb na mhm. waaye fexeel ba yow mi ko lal xam fa nga muuree ba bañ see tombe mhm. mais loolu moo leen dal fi mu nekk nii dañu defoon ne ce sera chose aisée d'amener le gars à la guillotine en finir avec lui une bonne fois pour toutes mais jusqu'à présent c'est lui qui est le maître du jeu il déroule comme il l'entend looloo tax ñoom il peine pour lem li nga xamante ne moo di match bi xam nga euh, si suñu jëlee kaawu Karim Wade kaawu Khalifa dañ ko jaaxale si justice mu yomb lool la mach euh, la machine mise en branle mu yomb trop si ñoom mais bi laal nañ ko terrain politique jàllul laal nañ ko terrain judiciaire fi mu nekk nii mi ngi léej si seen loxo. gars yi nag dañoo teewoon ci ay dugub ak ceeb ci Khalifa Sall de Karim Wade dañu ci ay affaire yu bari. soo ko dañoo teewul ci dara fii teewuñ dara voilà maam Birame mu ko waxee mais xam nga sax euh, sos di ko def. mu mën a prospérer ci dara sos bu jub wala lay bu jub mais fii nag moom sos beeg lay beeg lépp buñ ci teg rek ñu tamel leen ko seggal leen ko ba mu set wecc te fi mu nekk Pa Matar nag loolu moom même métti ci affaire bi mhm. woo nañu seen ay constitutionnaliste mhm. woo nañu seen ay juriste woo nañu seen ay député mhm. woo nañu seen ay ministre woo nañu woo nañu képp ku ñu xalaat ne sa xam-xam war naa mën a màcc ay sociologue sax woo nañ leen <laughs> te génn demul. Bambilor eh, li ma bëgg ñu taxaw si moo ñu delluwaat tuuti ginnaaw hmm. euh, ci. Euh, boobu boobule euh, procès ba ñu nuwee que euh, Cour suprême dafa indiwaat mbir yi fii ci Ndakaaru usman Sonko xamal waa Pastef que ni dañuy commencé tàmbali li nga xamante mooy parrainage yu Bassirou Diomaye Faye avocat yi doon ko jéem a dissuader mun leen noonu est-ce que du boobu initiative usman Sonko jël moom moo ñàkkal fayda mbir yi moom moo dem ba yàq li nga xamante ni mooy le état bi bëggoon mooy que nit ñi toog di naan dina am ak du am ak yu ni mel est du euh, le fait que mu choisir Bassirou Diomaye Faye ni pour ñu parrainer ko moom moo euh, faussé jeu wu état du Sénégal. waaw tout à fait. bon à travers le gouvernement. waaw parce que. Euh, xam nga tant que waa Pastef yi ñu ngi doon wax ne amul plan A amul plan B amul plan C. Mhm. pouvoir bi moom jàppoon nañu ne mun nañu ak Ousmane Sonko nekk dans le dilatoire ba këpp seen yelwaan. Mhm. malheureusement nag pour ñoom bi nga xamante ne ni cour suprême jël na décision bu mu mujjee jël nanguwuta assumer ses responsabilités delloo dossier bi au niveau du tribunal de grande instance da nga gis da nga seetlu ne 48 heures après rek la ñu wax ne nañu pare ne Bassirou Diomaye mhm. léegi dès l'instant que euh, waa Pastef yi nekkatul ne dañoo jël seen nen yëpp def ko ci benn pañe mhm. au moins jël nañ yenn yi dugal ko ci beneen pañe ça euh, day quelque part décourager ñi nga xamante ni seen stratégie dafa jàw dafa nekkoon ni mm-hmm. dañuy boole seen nen yëpp tojandoo ko ci benn pañe bi léegi nag comme que euh, noonu la demee waa passé fi tey jii ni am na si ñoo xam ne dañ naan la pendant que ñu ngi fële ci tribunal ba di lijjanti affaire Ousmane Sonko leneen ak leneen mhm. ñoom ñu ngi préparer seeni militants yooyu yooyu parce que xam nañ ne en définitive liy def la différence mhm. mooy euh, liy génn ci urne yi bu ñu demee élection mhm. léegi nag bu nekkee ne yow jël nga sa nen yëpp def ko ci benn panier lijjanti woo beneen candidat nga topp pouvoir bi nga xamante ne nii depuis le début awa mu ngi koy wax sànq xëy na seeni casting moo baaxul parce que soo seetloo euh, lii ñuy jugé nii yëpp. Mhm. ci affaire dossier Sweet Beauté la jóge mhm. lii yëpp ci dossier Sweet Beauté la jóge donc ñoom même bu nekkee ne euh, comment dire Adji Sarr kenn mën su ko euh, def dara it bu ñu wutoon koo xamante ne bopp bi daraa ngi ci xëy na affaire bi du tourner ba acci à quelque mois de l'élection mhm. te mënaguñu ba jusqu'à présent daaneel Ousmane Sonko bu doon koo xamante ni bopp bi xaw naa fees ñu ne kii quelque part mun na défendre ba euh, takkal un temps soit peu Ousmane Sonko. Mhm. xëy na yaakaar naa ne euh, du ñu yegg si fii malheureusement nag à chaque fois que pouvoir bi di def euh, seeni affaire caay-caay yi. ñi ñu utiliser du doon ñoo xamante ne ni dañuy taxaw pour mën a jouer rôle bi. Mhm. la dernière en date c' est avec le député la ñu bëgg a teg seen i pexe xool koo xamante ni bopp bi dara nekku ci ne ko kaay taxaw assemblée nationale commencé ubbi baal bi donc à chaque fois que ñoom seen pexe du sotti. ndax non seulement amuñu ci lu ñu téye mais également ñi leen di joué loo seen jeu boobu nekkuñu ñoo xamante nii ils sont à la hauteur. casting bi du baax. cas casting bi du kes casting bi du baax. Mhm. maintenant nag comme que waa Pastef xam nañu ne ak sénégalais yi nga xamante ne yëpp seen yéene mooy bu élection jotee ñu voté Ousmane Sonko. parce que mhm. tey euh, souvent ci piège boobu la ñuy tombé dañuy jàpp ne Macky Sall lu muy def nii mhm. Ousmane Sonko la koy def ak waa Pastef alors que tey. nar na bu nekkee ne dem nañu ba éliminer Ousmane Sonko imaginez bien de Sénégalais ñoo amoon yéene dem voté ji parce que Ousmane Sonko la ñu choisiroon ñooñu tey jii ni xañ nga leen li nga xamante nii moo gën a am importance ci un citoyen maanaam mooy choisir kan moo lay jiite. Mhm. donc buñ demee nag ñoom ba nga xamante ne nii nee nañu Ousmane Sonko de buñ demee ba nga xamante ne nii jàllale ngeen ko ma euh, mu génn ci seen euh, comment dire yii ngeen di teg yëpp ok dinañu ko euh, parrainel te bu boobaa. Euh, depuis ay député lay doon mais bu ñu demee ba nga xamante ne nii euh, Ousmane Sonko moom def ngeen seen i pexe ba mënul nekk candidat mais on a toujours quel quelque part où se euh, rabattre parce que <laughs> xam nga loolu yenn opposants yi sax ñoom dañu yaakaaroon ne. xëy na bokk nañu yeewi askan wi su ñu demee ba Ousmane Sonko kat càng ba mm-hmm. mënatul a nekk candidat dina ne voté leen bangoog dina leen ko yàqal moo tax ñenn ñi di wax comprendre nga mm-hmm. nga jàpp ne ñii kat ñoo gën a dàq défendre Ousmane Sonko ñii ñoo gën a gëm mm-hmm. Ousmane Sonko alors que seen intention mooy nañ leen yàqal popularité Ousmane Sonko bi ndax ñu demee ko vote. kon finalement du seen pour ñoom waa mm-hmm. man ko finalement du yaakaaru état du Sénégal kese eh, tas. du yaakaaru état opposition bi aussi dafa am ñu seen yaakaar <laughs> ah bien sûr am na si gars yi doon commencé génn nekk président bi <laughs> même bu nekkee deux ans. <laughs> donc mooy loolu tey nii comme que ñoom am nañ Bassirou Diomaye te wax naa ko Bassirou Diomaye nekkul ne instant yi nii moom la ñuy wutal moom la ñu doon wutal parrainage. Mhm. mais nekkul jusqu'à présent que moom la ñuy wax ne moom mooy formellement le candidat bi euh, représenter le Pastef. Mhm. parce que ak ñoom seeni pexe mun nañu dem tamit ba au dernier moment ñu ne dañ koy indil ay galgal mais bu fekkee ñoom jëloon nañ seeni matukaay ba nga xamante nii am nañu vingt six députés yoo xamante ni au moins dinañu mën a parrainer deux candidats donc bu ñu jaaree fii. ñu jéem leen a koc ñu jaar feneen rek mu jeex parce que l' essentiel mooy am quelqu'un boo xamante ni am na seen i idée accès au pouvoir balayeel ñu la maison ba pare organiser yeneen élection Georges Nesta est-ce que finalement mun nañu wax à malin malin et demi bon à malin malin et demi je sais pas mais en tout cas euh, ce projet de PASTEF la je crois que euh, on n'est pas encore à, la fin de l'histoire man la conviction que peut di ngeen dégg beneen candidat fii ay ay yu ñëw loolu moom loolu moom li ma li ma leer la moom mhm. euh, te tout dépendra de l'issue de ce procès la aujourd'hui ah oui tey bu bu ñu bu ñu éliminer direct définitivement Ousmane Sonko tey mhm. dans la dans la semaine di nga dégg ay yeneen développement par rapport ak la candidature de de mhm. parce que ils sont ils seront obligés parce que ñoom am na ñenn si ñu xam am na ñenn si ñoom ñi nga xam ne boo waxtaanee ak ñoom dañ lay wax que déjà il y a des doutes sur la candidature même de de de de de de de, mhm. parce que avec ce régime là il faut s'attendre à tout. Mm il faut sa trente ce que même ba gars yi dem jusqu'au jusqu'à la dernière minute jusqu'au niveau du conseil constitutionnel ñu génneel la ay ay ay kii yoo xam ne ay ay galgal yoo xam ne tu seras obligé de ah voilà donc là amatoo pexe. faut rappeler que ni ba tey Pastef euh, waxuñu ni Bassirou Diomaye Faye mooy seen candidat. ah voilà donc euh, je crois que c'était loolu tax ma ne la d'ici quelque chose tout dépendra de l'issue du du, du procès aujourd'hui bu amee ne gars yi xam nañ ne que définitivement. Mhm. le dossier là mënatuñ si dara mënatuñ si avancer amatuñu espoir pour que euh, Ousmane Sonko nekk seen candidat. mais ils seront obligés de de de de de de de se trouver plan xaw ma C xaw ma un plan D. Mhm. c'est vrai qu'au début dañ ko doon wax ne amuñu plan A amuñu plan B le seul plan A ak mais là aussi bon je que ça a été une stratégie boo xam ne euh, bon elle est je ne dirais je ne dirais pas qu'elle était un, euh, un, euh, une stratégie mal pensée. mais il fallait pas trop trop trop trop mhm. xam nga lu tax. Mhm. je ne pense pas que. lu toll ni électorat wu Pastef ak seen détermination ak cette mobilisation mhm. ñu mën a dem jusqu'au jusqu'à la dernière minute et que ça termine en en de poisson mhm. maanaam yaakaar bu tas comme ça mhm. sans ñu mën a am peut-être un plan B euh, une solution de rechange boo xam ne euh, li nga xam ne seen espoir yëpp loolu lañ ko porté woon ak seen détermination ak lu ñu liggéey depuis peut-être 2016 ba léegi mais que ça comme ça que ça finisse en eau de boudin te duñu am sax feneen fu ñu koy jooyee man looloo tax mu gëm que ne euh, ils sont obligés même d'aller trouver un plan C wala un plan D pourquoi pas parce que là n'oubliez pas que ça ils ont en face de un état boo xam ne day dérouler beaucoup de stratégies ak beaucoup de pièges mhm. parce que ñoom en face de l'état da ngay dégg ñoo xam ne dañ la koy wax entre eux am na ñoo xam ne bon ils ne le disent pas comme ça dans les surtout les trois wala dans les radios mais dañ lay naan tout sauf le Pastef c'est-à-dire pour ñoom dañ def lép ils peuvent accepter n'importe quelle candidature sauf une candidature qui vient du Pastef mm-hmm. te ça ils ne le cachent pas mm-hmm. ça également le pouvoir ne le cache le pouvoir fait tout pour que Pastef bañ am un candidat mm-hmm. wala boog mu nekk candidat boo xam ne voilà euh, genre candidat de de seconde zone lay doon mais ne sera pas un candidat boo xam ne fu mu génne nekk diw mi il a des chances pour remporter la présidentielle jàmm ji TV Pape Makhtar euh, Sénégal yi defoon euh, changement de vote au niveau euh, de Djeddah ñooy réclamer seen carte d'identité ba léegi mënuñu ci jot empêché nañu parrainage bi ak bi nañu jox suñu carte balaa 2024 sénégalais yi nga nekkee fële ca Jidda ñooy réclamer seen carte d'identité nationale yooyu nga xamante ni day ànd laale carte électeur pour que ñu mën a def li nga xamante dañ ko jàppee euh, devoir euh, bu chaque citoyen war a mën a def euh, droit la aussi bu mu am muy tànn ñiitum réew alors ñu tëjee kii bi discussion bi foofu bi les sujets Awa Diop Ndiaye ak li bi Birame wax mooy que finalement nekkul woon contre état du Sénégal kese le état du Sénégal bu ko waxee régime bi moo tax ñuy wax la Ousmane ko doon nekk ci benn genre de jeu de dupe wala ci jaaru en tout cas euh, benn benn benn mbir boo xamante ni daal mbirum xel la euh, opposants yi aussi am na ñoo xamante ni dañu yaakaaroon euh, ci voilà buñ ko éliminer moom mu defal leen li nga xamante ni mooy ay consigne de vote ñoom ñu am peut-être report de vote ba nekk président par accident mais Pape Matar soo xoolee ci opposition bi ñu bëri ñu ngi sololoon Ousmane Sonko robe avocat am na ci ñu bëri ñoo xamante ne sax ña doon ñaan li nga xamante ne moo di ay parrainage ñooñu ñëpp dañu yaakaaroon ne Ousmane su demulee ñu yekkal leen ko. Mhm. dañu yaakaar ne ni ñu doon ànd ak ñoom ak seen yi mais yaakaar naa ne ku ndóobin rey sa maam soo gisee lu ñuul doog. soo gisee seen àndandoo ci biir yeew yi ni mu demee woon. ñu gis digganteem tey jii moom a Khalifa ak ñoom Barth ni mu demee la ca tukkee yëpp. kooku nga defal ni tamit dina amati eh, confiance totale ci ñenn ñi ba ne mi ngi leen di yekkal Sénégal. Mhm. nit ñi moom la jox bopp mu xamal askan wi ak ñi ko àndal ne mbir mi du moom kese mais c'est un projet kon tey moo tax ma naan ñiy sukkandiku ci plan sax defe naan ñi ngi def fausse route le projet de société de Pastef mhm. si lañu ñu war a sukkandiku xool le projet le contenu du projet bu boobaa du ñu def benn fixette si un tel ou un parce que projet bi moom mooy définir la personne qui va diriger ce projet là mm-hmm. Ousmane Sonko certes a dirigé ce projet là gëmloo ko askan wi ñu épouser ko approprier wu ce projet là mais également expliquer leen ne proté projet bi mënuñu ko yemale si benn nit ba nar a gàllankoor projet boobu ak fi ñu bëgg jëm xam nga toog nañu ne euh, Boubacar Camara def nañu moom émission mu ne alternance su amul en 2024 changement su amul en 2024 mhm. ce sera la faute à Pastef parce que tey jii xam nañ na ñoom ñoo yor les rênes pour élire un nouveau président bi nga xamante ne aspiration yi ñu am ñoom projet bi ñu vendre proposé ñu ko avec euh, également li leen euh, seen livre solution bi ñu proposé woon tout a été dit là-dedans tey ci loolu la ñuy xaar jinax nag su buggee mucc pamata mhm. day bëri pax kii euh, Georges mi ngi naan état ñi ngi def seen kem kattan tout sauf le Pastef wala kenn ku niroog Pastef wala ku jege Pastef mais boobu ba léegi ñi ngi koy def mais mënuñu guñ cee am li nga xamante ne moo di ndam te nag am na fenn foo xamante ne. sooy bëree bëree wootoo ak nit mais askan ngay bëree mais suñu borom également ngay bëree te nag suñu borom kuy bëree moom du mbër bu yomba daan. Mhm. moom rek moo lay daan jàll. Mhm. te foofu la ñu toll instant bi mhm. gis nga parrainage de euh, euh, ñaari euh, député yi nga xamante ne Pastef am na ko droit Pape Matar le jeu sera ouvert bientôt si ngay doog xam nag carrément. ñi doon wax ne Pastef. Euh, euh, c'est des novices en politique. Oui. mënuñu politique. Mm -hmm. foofu lañu leen di wane carrément que politiques aguerris je parle pas de politiciens mais ce sont des politiques aguerris à la tâche ils vont le montrer sous yàggatul foofu la jeu bi di leere foofu la carte gi di leere et tey ji erreur bu munti def moo di ne jël ay euh, ñi ñu jàpp woon les alliés de Yewwi ne ñu ngi ciy tànn kenn pour yekkal leen ko ce sera une erreur monumentale boo xamante ne bés bu amee dootuñu ko defati. Mhm, mhm. am na solo bu baax a baax di jaajëfal Sénégalais yi ñuy topp ci 99 point 0 ak.